asalaamualeykum bokki jullit yi ak bokki àdduna bokki Sénégal di sant yàlla di ko ànd ak yéen di julli ci ab yeneenteem di ci àndaat ak yéen ndax ñaar lo ñaari yooyulu lañu yàlla dénk bu ñu ki nekkee mu mel ni jaamu yàlla la ki ñun bu ko def bu ko defee ci ndigalu Alaaji Sidiya Dramé rek muy xalif général di président national union des oulémas du Mandin muy ambassadeur universel de la paix waaye la may wax loolu lépp li ko ci gënal mooy saaxibul quran muy borom alquran ndax li kulli darajatin mimma amilu nit ku nekk la dol la toll ni liggéeyam la ko yàlla di takkal ci médaille te moom xëyam ak ngontoom lépp yàlla dogal na ni ci alquran la koy def loolu tax na at bu jot bu ñu daan deme ba toll ci waxtu weer gu ñu tuddee weeru gàmm xel yi ak donton yi mus ñoo jógee ci Seydina Muhammad waaye bu ñu ju bu ñu eggee ci weer gi sang-sang yi gane ci àdduna xel yi dañuy gën a nekk ci Seydina Muhammad ñuy màggal juddoom muy bisu mawlud bis bu mu juddoo moom Seydina Muhammad ñun nag ñu di ko gunge ak alxuraan bu weer bi feeñoo def ci ay lim yu bari yàlla dogal doomu aadama lu mu ne lu ne rek yokkute ak yaatal la kiy bëgg at bu jot président national di borom alquran Alaaji Sidy Dramé joxe ndigal ki ay njabootam comme ni ko oustaz waxee léegi fu njaboot ne ci àdduna ne leen santal leen ma yàlla ñu ne ko Alaaji Sidy nan lañ lay santalee yàlla nee na nee na ci alquran ngeen may sant yàlla bu ngeen santal ma yàlla bu baax ci tarang gi ñu yàlla jox mu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ren nag ñu commencé ko ci weeru safar ñu commencé ko ci ñaar fukki fan ak ñaar ki weeru safar muy ajjuma bii ñu weesu diggante ajjuma ak samedi tey ci mbaaxu yàlla ñu am ci juróom fukki kaamil ak ñett waaye amaale ki nag ay téeméer ki sootul yi ndax boroom xam-xam yi d'accord nañ ni doomu adama li gën ci mooy mooy xolam te boroom xam-xam yi d'accord nañ ni alquran bu dee lu am xol la ñu ne sootul yi mooy xol bi kon mbokk yi wa falitanafasil mutanafisuun nañu njëkkalante nañu daw dem wuyu alquran ndax istajibu lakum istajibu lakum kon mbokk yi nañu wuyu alquran dafa ne yaa ayuha allazina amanu istajibu lillahi wa lirasulihi iza daakum lima yuhyikum ñu ngi jéeglu di baal àq ñëpp di sant réew mi yëpp kilifa diine yi ñu di leen ñaanal ndax wa ma kaana allah li yuazibahum wa anta fihim waaye kilifa aada yi ñu di leen ñaanal ndax ñoo yore kaarange bi yore lu bari ci réew mi bu ñu mën a tedd ñun di nelaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu